mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen wax na nag ñoo mooy jàmmaarloo su mu nee jàmmaarloo nag xel yi dem ci fans yi su mu nee xel yi dem ci supporter waaye bu mu nee jàmmaarloo mbokk yi xel yi dem ci ñaari mbër yi ndax fii de li ma koy waxee chaque jour rek bëgguma fukk buy tàng buy sedd buy tàng rek laa fi bëgg ba tax na tey damaa dugg Grand Yoff ànd ki nga xamante ni ni mooy Ndandi Fall dugg fi nga xamante ni mooy Géejawaay ànd ki nga xamante ni mooy Papa Boy Djiné ndax waa Géejawaay fan yi moom macha allah yàlla bu leen ca topp ndax xam naa ne dañoo xew ndax fan yi moom affaire neex na lool xaaral ba njëkkee ci Ndandi Fall bàyyi ko mu nuyoo ñëwul waxtaan wi nuyu naa waaye fay naa la jàmbaar di nuyu waa Wassare Lamb yëpp ginnaaw bu ñu sant yàlla julli Seydina Muhammad di gërëm suñu ñaari waaju di gërëm waa Grand zone 7B ba xam ne fa jóge di gërëm si waa écrit Grand yëpp ñu ngi leen bëggee bu baax di leen ziar di nuyu sama commandant mooy Mara nuyu sama gars yëpp ñoom Baye Góor ñoom Baye Tafa ñoom ñëpp maa ngi leen bëggee bu baax a baax di ñëpp waa Grand gépp képp ku may seex maa ngi lay bëggee képp ku koy seetaan mu ngi lay bëggee xanaa mu ñëw ci ki nga xamante ni mooy papa Boy Djiné Serigne Ndeye Gueye papa nuyu naa la. yéen maa lay fay ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si di sant suñu ñaari waajur di nuyu géejawaay bi nga xam ne fa lañ jugee di nuy ñi nga xam ne ñoom lañ fekk si plateau bi di nuyu Nandi Fall di la bu baax. maa ngi lay bëggee. waaw jaajëf. mais da ngeen xaw a sedd climat bi leen jàpp wala nu mu demee noonu. non non pourtant. Euh. waaw nuyoo lañ def rek. ah da ngeen nuyoo lañ def nii rek. <laughs> Ndande da ñëw seetlu nu non dara dara pourtant dañoo nuyoo wax nuyu su xama benn sant booy ubbi ngeen nuyoo loolu rek la. Hmm. mais lan moo tax mbër boo ko gisee par rapport bu nekkee ci biir géew muy am tuuti différence lu lu waral loolu. Ah, bokkul ndax làmb boo xasee taxaw yow benn instant bëggoonul jot def sa adversaire lu métti loole bu jeexee jeex la liggéey bee ñu boole kese ah. waa laa gis. boo gisee Papa Boy Djiné mu tuus xam naa après Adama dinañ may tuus tuuti ci tuus Papa Boy Djiné la moo boo gisee Papa Boy Djiné ci biir stade gis ko muy tuus boo ko gisaatee buñ ne la kii mooy papa nga ne déedéet. loolu suñu métier la bu fekkee te dañ ko war a def dañ koy def bu jeexee jeex na parce que mbër du affaire dof daal affaire nit la parce que daan doole moo ñu si dugal suñ ko waree def dañ koy def buñ ci paree dañuy nekkaat nit loolu kese la. kañ nga dugg ci làmb. man 2016. 2016 defe naa 5 ans wala 6 ans 6 ans. 6 5 ans. 5 ans ñaata combat nga def. def naa 8 komba 8 combats ok ñaata victoire. maa si 4 victoire. 4 victoire ok ndaa ñaata combats. waaw man maa ngi 18 combats. 18 combats. waaw 11 victoire 2 matchs nuls 6 6 défaites. mais la moo tax ndaan di bañ daan gis. ndànd bañ daan seetaan léegi mënatuñ koo gis la wala lool waaw du dara ndogal suñu borom la woon dama koy sant yàlla du ma wax diw du ma wax suñu borom la woon loolu jeex na tàkk ñu ngi liggéey nekk suñu kanam instant loolu fa lañ ko teg yàlla moo ñu doon may moo ñu xañ dañ koy sant suñu borom bu baax a baax duñ ko wax kenn yàlla moo doon may mii neex yàlla moo ñu tegoon ay jafe du sax jafe ndax jàmm moom toujours yàlla boo tegee da koy sante borom bi quoi xam loolu jeex na tàkk ñuy xool nekk suñu kanam quoi. ban komba nga bëree sentir ne tey Ndandi mi mi ma xamoon wala boog Ndandi Fall bii ñëwul ban combat la. waaw combat yooyu su ma la koy wax tamit maa kii ci laa gëj kii quoi. Euh, Ndiol kii Lamsaar mbaru Lamsaar bi. Euh, kii. Nagourel bu Lamsaar waaw combat bu depuis combat boobu ba léegi daal. moo la wax ne loolu yëpp ndogal suñu borom la quoi du kenn nag du kenn benn mbër bu ko def. déet ndogalu suñu borom la déet déet sa combat yaa ko réel ci nga gëjee sentir ne Ndande Fall boobu ñëwatul kon kay xanaa sa diggante na ko la. non da nga ma laaj li nga ma laaj laa la tontu waxuma nag nag làmb moo ñu boole man su ma ko mënoon def loolu mu koy def su ma mënee def loolu amul defuma ah, dara. mais mais naka lañ lay fayee fay ko. waaw nga xullee ba mu lay. defuma dara jekkuwuma dara ñëw naa ñàkk waxuma moom ma def de làmb dama doon ñëw di daan doomu jàmbur bu ñu ma daanee dama koy sante borom bi bu baax kenn defuma tus waaw dama doon am ñàkk moo ñëw dama ñàkk kese. waaw loolu gis ne sa combat yi nga mujjee bëgg dafa xaw a yomb bu moo moog soq surtout sax yow ak soq coow lu ci amoon nga ñëw combat bi demee noonu kenn xamee woon daan di faal. non maag soq sax diire na maag soq def nañu deux prexit. waa mais taxawuloo. non combat boobu noonu lañ ma ko bëri loowee maag soq à l'essentiel boo xoolee sama yeneen combat yëpp ñëw ma naa si waaye boo xoolee période bii ma nekk nii ndax làmb da ngay tegle ay defet xamoo ko da nga xaw a découragé tuuti. wax ne nag comme nit moom moo sa bopp. Mhm. am na beneen yoon buñ jël tegu fa tey incha allah li ci kanam rawul bët quoi waaw. ma ñëw ci papa papa ñu gis alir bi bi ngay doog a dugg si affaire yi neexoon na mais nga dem ba ci biir affaire yi tamit xaw a gàllu góose nu mu demee noonu sax nag yow nag lii sa problème mooy da ngay ñëw xaw ma da ngay xaw a xeeb adversaire xaw ma daal naka lay demee noonu mais papa day ñëw entraîné am doole mais bu ñëwee daal bu bu bëree nga ne noonu lu war nu mu demee nii. waa ñun ay xale lañ sport nekk suñu passion ñu bëgg ko peut-être nag suñu làmb demeegul nu mu war a demee mais ñu ngi sant yàlla bu baax xam na ñun may ñu suñu bopp yàlla moo yor ndam mooy xool ku ma neex mu jox ko en tout cas ñun ñu ngi si liggéey parce que ñun làmb la ñu bëgg sport la ñu bëgg ànd si ak suñuy mbokk buñ demee ba xam ne làmb mënatuñ ci def dara wala mënatuñ ci am dara dañ koy bàyyi parce que làmb amul neexal. Mm-hmm. kenn dugaluma si man maa ci dugal sama bopp. peut-être nag carrière bi ni mu war a demee demeegul noonu mais man xam naa li nekk suma bopp xam naa li nekk suma kanam tamit damay ñaan yàlla suñu borom mi nga xam ne moom moo yor ndam ibbil bunt yi li des si suñu suñu borom may si ay incha allah rabbi. mais lan moo lay lan moo lay lan bu ñëwee boo tuusee dinañ xam ne papa ñëw na boo simee ko di nga yëngal stade bi supporter dina topp mais lan mooy des. waa yàlla rek mooy des parce que suñu borom moom moo yor ndam. man yoruma ko yow yoroo ko keneen yoroo ko mm-hmm. ñun ñëpp dañuy sabablu rek tey képp kuy bëre boo sañoon da daan mais daanu mënul ñàkk ci làmb ay ndaw lañ carrière bu nekk gis nañ ko fi mën nga ko commencé say défaite jeexalee ko say victoire mm-hmm. mais man maa ngi ñaan yàlla suñu borom njëkkee fu metti mujjee fu neex yàlla ma yàlla taxaw suturaal ma ba li des suma carrière ma yeggale ko ak jàmm ak salaam ci barki Seydina Mohamed. lan moo tax nga waa làmb bëre door la ñu wax kenn ku nekk yow yaay xool sa préparation li la doy nga def ko man peut-être su ma ñëwee si làmb man li may gis mooy dama war a xeex bëre mais peut-être amaguma adversaire yi nga xam ne tey dañuy dëggal seen bopp taxaw pour guerre déedéet li ñuy wax si signature bi ak li ñuy def ça fait deux ko waa ñemewuñ wuñ ñeme dëggal seen bopp ñu jeexaat. dama gis sa combat yaak euh, bébé bis mi duma ko ba mu génn. peut-être ñu bëri ne nañ suivre mais boo suivre woon am na moment boo xamante ni làmb ji jeexoon na mais xeex bi bokk nañ ci lii la yàqal combat bi. waaw dëgg la loolu moom ndogalu suñu boroom la ndax làmb gis nañ fi sax ñu dóor mbër ba muy waaj daanu mu daan. Mhm. nañ fi mbër xeex ba sonn nañu daan ko làmb saa su nekk boo waree daanu li lay li daan doo ko xam tey li ngeen wax noonu wala li nga wax noonu loolu moom moo am. mais peut-être borom moom moo bindee noonu ay mbiram moom moo dogalee noonu ay mbiram peut-être noonu la waroon demee peut-être dañuy xeex mu duma ko mu daan ma mais maa ngi sant yàlla bu baax di ko ñaanal ndam li jikko li des suma carrière suñu borom suturaal ma may may ndam incha allah rabi. yow daal fi ma su ma déggee wax ji mooy li nga gën a bëgg ku taxaw di dëggal boppam. <laughs> Ndandival. ma gis sa combat bu mujj bi. Hmm. nga bëri mais euh, finition bi dafa des wala boo Euh, xaw ma daal naka naka la làmb ji demee noonu ba nga ñàkk. waaw combat Kaolack foog ma leeral tuuti man kooku xamal ne moo su ma taxee moom lool nu mu demee la dañ ñëw làmb ji xam nga Kaolack dafa sore. Mhm. ñëw di dugg si si làmb ji policiers yi ne duñ jaar bi fee la ñuy jaar sama gars yi jëf leen fii la ñuy jaar. mooy làmb bi nga mujjee ba. waaw Kaolack. Mhm. lu waral sa après ma mujjee téye sama bopp si làmb ji waa ji naa ko trois fois ñu war ko jox avertissement joxuñu ko avertissement waa làmb yëpp di yuuxu dañ ko war a jox avertissement ñaar bi tamit du ma forcer sama combat fu ma toll si làmb xam nga te géew bi ndaw na deux appels sax su ma ko defee ñàkk sama ñu ma àndal ñu ne ma carrément comme dem nga demati dàq nga ko mu génn taxaw téyel sa bopp mais ne sama téye sama bopp xam nga di léwatoo. maa mais lan moo tax mënoo ko woon jàpp boobu maa ko avertissement am naa trois avertissement am naa moo am na trois avertissement man maa am benn mu jàpp sama baaraam bi ma ne ko arbitre yaa ngi gis baaraam bi xam nga arbitre na ma bëreel foofu benn baaraam la jàpp te ñetti baaraam la ñu am droit jàpp. Mhm. ma mujj reculer génn arbitre jox ma avertissement. kaa ngi dégg non mu nekk 3 3 boobu jeex na. presque temps bi jeex na ba kii dama aw génne mu jox ma avertissement rek mu ñëw mu tas làmb ji kaa ngi dégg li la mhm. après nag man a garaaw sama xaalis lépp dañ ko fa téye woon dagg sama xaalis dem nañ ba président CNG CNG bi dem nañ ba si ma bira expliqué ko. xam nga loolu tamit. digg micro tuuti. dem nañ ba si père bira mhm. expliqué ko carrément sama ménager dem na fa expliqué ko carrément lu ñu ma def. téye nañ sama xaalis dagg ko ci loo xam ne tegul fenn. ñaara bu ñu def ay coono yu metti te loolu tamit ñun bu ñu jógee fii dem di bëri ji foofu. Mm. bu ñu neexoon bañ fa bëri ji dañu proposé combat bi ñu ne amul problème comme bëri moo suñu métti ñu dem bëri ji beneen yoon nag nañ ci nañ ci jël seen matukaay quoi ndax ñu ngi ma fa waxaat combat nii ma pare ba pour jël ko ndax li ma fa daj ndax mënoo yóbbu ay nit daj fa ay coono ñu ko ñu leen di dóor ëllëg nga jaar combat di leen fa yóbbu loolu risque la quoi du ma def benn du jël doomu jàmbur di ko boobu quoi. xam nga nañ ci jël matukaay bu baax a baax. yow daal da gis ne gan daal ganale. dañ ko woon ganale mais woo ñu teew waaw gan ganale ndax munoo ñëw di dugg en tant que mbër ma sama sengoo rek dañ ko dagg. loolu du yoon man suma ko gis en tant que policier di tàpp sama sengoo di ko dagg ne fii dangay ngay génn porte bi fa ñu ne ñun duñ génn dañuy dee rek woon duñ génn ndax bu ñu génn làmb ji du am waaw. gis ngeen moo tax combat bu mujj dafa mag si niin waaye nag bokki bu ngeen gisee jàmmaaloo moo woo yi dafa fekk mu nekk ñoo xamante ni làmb dafa bëgg seen combat wala ñoom ñaa ñu bëggante wala promoteur yi di dox seen combat ba ci ñi nga xamante ni sax seen combat dafay taxaw dañ leen fi woo bëgguñu jàmmaarloo fii dama dégg léegi Papa Boy ne mu ne dafa tasanteegul ak mbër moo xamante ni nii dafay dëggal boppam te xam naa ne ko xam ne daan defaal ku ne xam ne ci dëggal boppam la yàgg dëgg su ma la andiloon Papa Boy ne jox la avance am looy wax. waaw la wante wax dëgg neex yàlla lépp lu ñu munti boole du palmarès du dara. xaalis moo ñu mën a boole si làmb ndax promoteur woo na ma wax ma ko du ma ko kii ndax champion la mu ngi si yoonam man amul benn adversaire bu ñu boole maag moom si làmb. làmb nag toll na fi loo xam ne làmb daa xaw a feebar ndax adversaire bu ñu bu ñu ma fayee xaalis ndax man mbër mbër laa làmb ji rek gàtt na gàttaay bu loo xam ne bu ñu la fayee jël ko bëre man bu ma fayee xaalis bu ko jar dama koy jël bëre ak moom benn mbër bu may man fu ma jaar papa jaaragu fa ñu ma bëree papa bëreewul ak ñoom comme na bu ñuy wax waxu ay moytante man bokk ma si ñooñu quoi man amul benn mbër booy moor si làmb bu sama adversaire bu sama staff d'accord rek man pare naa pour bëri. loolu mais bu la palmarès boolewu ak moom coow làmb boolewu la ak moom nga jël ko ndax xaalis est du nekk risque. non làmb ji lépp amul làmb lu risque risque amul fopp risque la sama carré di boobale risque laay def kon benn staff fu ñu toll ñun ay ndaw lañ dañu war a bëri man bu bu sama staff bu ñu d'accord rek pare naa pour bëre ak moom kese bu ñu ma fayee lu ko jar ndax sama staff carrément lu ñu ma wax lu weer la moom. woo nañ ma wax ma ci combat bi déggaatuma promoteur promoteur bu ma woo fay ma xaalis bu ma bu ma jaral ma bëreeg moom. sa diggante ak Ndandy Fall. waaw man promoteur yi ma woo di ma wax combat bu bari na mais comme li mu wax rek moo ñu jiitu si làmb suñu garant la man defaguma dara si làmb mais làmb léegi tollootul foofu. Mm-hmm. kenn ku nekk li ngay daw yóbbu sa kër moom moo la ñor. Mm-hmm. kii amatul leen lu muy prouvé si làmb Ndandy lim amatul lu muy profité si làmb li mu war a def si làmb def na ko li mu war def si làmb def na ko parce que champion la ay champion la bëreel. yaa toll ci prouver wane sa bopp. man maa toll si wane sama bopp te li mu wax dama ko koy nangul dara boole wuñu si làmb lu dul xaalis mais am na kase yoo xam ne boo koy laaj ci yenn combat duñ la ko fay te benn promoteur du la ko fay. da jàpp ne li muy laaj dafa bari. waaw parce que làmb foofu la toll. da ngay dem ba benn instant kat ngay dem di dem di dem di dem ba mu yàgg nga taxaw mënatoo dem mënatoo dikk ay xale nekk si yoon nekk yaakaaru làmb war a dem yow nga nekk ci yoon bi mooy li gars yi def may seeni rakk sens ñu bëre. mais est-ce que jaar jaar ut yoon bu nooy est-ce que jaar ak ci Nandi Fall dina yomb. non Nandi amul lu nooy si moom parce que mbër la te day entraîné parce que tey am na mbër yoo xam ne tey dañuy nekk ci défaite boo buñ simee ko stade da nga leen di yërëm. waaw loolu doo gis ci moom. mais Nandi Fall la chaque làmb parce que du dara quoi. Hmm. tey suñu suñu garant la dañ koy jox ci respecté ko waxal ko li nga xam ne moom lañ gis ci moom amul làmb ju muy simee ko ñëw te dundi état de forme parce que bañkat la. Hmm. mais tey am na combat yoo xam ne tey su fekkee da ngay laaj yenn kase yi promoteur duñu ko fay. wax mbaax waaye jàmbul yàqul dara sa mbaax Nandi Fall buy jógee garab di ñëw oto bi koy topp indi indi ay galaaj ak koy topp. Hmm. yaa ngi gis te promoteur léegi tollatuñ foofu si làmb. boo amee deux cent combats am deux cent victoire te ñëw stade mënoo indi ay ay ay ay supporters. promoteur duñ la tëgg. loolu looloo tax léegi làmb ñuy xool mbër mu am supporter ak mbër mu xam ne def na dara si làmb ñu boole leen. loolu moom moo nekk si làmb li ko promoteur di fay bu ko arrangé pare naa pour bëreeg moom bu ko arrangé wul day dem seeti leneen ma seeti leneen parce que man xam naa ne man nekkuma mbër muy toog di xar ndax dégg nga man nee la <laughs> man benn promoteur moo ma woo wax ma Papa Boy Djiné benn promoteur ñu Assane Ndiaye moo ma woon avant sama combat bi ma ne ko de saa yi jàpp après dañuy déggante waat mu ne ma damay dem Touba avant màggal Touba. Mhm. si laa ko dégg. amul beneen promoteur man yeneen combat yu may jox am na yeneen combat yu ndox sama ci man ñu ngi doon dox sama combat maag booy rëbës booy Fass bi. Ada Fass ñu ngi doon dox sama combat maag moom ñoo ñëpp mi Papa Awa ak mi Ada Fass ak mi yenn bu képp ku ñu ma fay li ma jar ma bëre ñoom mi barki alxuraanu karim la maa la mag daa ngi nax sa bopp dama leen dama teel a sob dugg si kaw. billaahi wallaahi wa taala bépp mbër bu jàpp ni la mag. barki alxuraan ñii ba ma wax la tuuti. Mm-hmm. Ikiri Waala ñëw naa fa maa ngi àll ñu naan ànd. billaahi wallaahi wa taala booy yu fa nekkoon ñëpp dama lay wax la ñu mu fekkoon ñëpp. booy génération ñëpp amul kenn ku ma si mënoon daan ci mbab euh, contact man mobile ñoo doon ànd ak la de Guiers 1. boobu moom newul écurie Walo. boobu kon bu laajee roon ci instant bi mu toll. Mhm. bu laajee roon ci instant bi mu toll man instant bi ma toll ma soxla amul benn loo xam ne pourvenance yi làmb pour be làmb dafa guma fi dara. mbaaru yaa ngi moom yéen a yem tànk bi ngeen teg. dafa mel ni dama dama beesaat ci làmb. dama màgg ci làmb dama lay wax rek <laughs> xaalis moo ñu mën a boole waaw ah, ma ñëw xaalis moo ñu mën a boole ci làmb mhm. dama beesaat ci làmb tàkk jaral beneen yoon billaahi wallaahi wa taala làmb dafa ma jaral léegi li ma jarul woon dafa jaral kon kon est-ce que ah. doo jël booy bi xool noo ko def jéem a continuer non déggoo li ma nee naa la bàyyi ma fi benn mbër wante kii xaalis moo ñuy boole non damaa gis ne moom dafa pare pour ak yow noo man te comme que da nga beesaat te fi mu toll nii neexoo téye am nga doo ko xaw ko am nga papa papa du ma ko dégloo samp la man li ma la wax ci wax bi dama ne la amuñu benn adversaire bu ñu lié maag moom. man mii ah déglu ma rek man. Mhm. ma am yeneen at moom nee na du du man maa dul sommet ci làmb. ah sommet gu ma bokk ndax jóge naa lu yàggul combat te su ma neexoon tey tey tey ma lekk avance. est que dégg ji fu mu toll lu ma lu ñu ma jaral laay bëre ku ma fayul lu ma jaral lu ma bëre. mais comme que jàpp na ne man nga te moom xale la est-ce que doo ko may sens tamit ngeen ngeen ngeen jëflante. non ah na wax bi kay moom kay léegi lenn la. Mhm. promoteur bu koy tëgg moom day dagg ci kasem doole ma ma jël ko. war na Serigne Abdul Karim Mbacke ma yaakaar combat bi mu bëri ji woon Kaolack. Mhm. un million cinq cent ñu si fay ma leen bëri jiwuma Kaolack. Ah, man li man li man plaqué bu Kaolack. woo nañu ma man wax ma combat man li ma naqari Dakar la ma dalee te dakaar laa koy fajee man làmb soxlawu ma ci xaalis. taxal ma wax la tuuti. yaa xaar ba mm-hmm. baa ma daaneel alxuraanu karim mbaru kawlax yu bëri dañ ko ragal. waaw baa ma daaneel. billaahi wallaahi léegi da wax moom ci ñu ko ragal ci la. tuuti. man palaake bëri nañu ko ragal ci làmb ji ay waxu pelkaal bu ñuy muuroog yow man gawuma loolu. kaw dëkkam laa ko fekk seeka fu mu toll jàmbaar dëgg mooy toll ci ay defet di génn di bëri ci. ndax wàllu dafa metti ku ñu naxam dañu ñëpp wàllu yaan dafa metti quoi booy wàllu dafa metti jàmbaar moo koy def nag ak gaynde parce que déggum la kase boobu muy wax guddi yi pour mu am ko ci làmb mën du yomb ah buñ ko fayee kaw la da ko war a bëri ji wante jàmbaar mooy tax mu génn bëri ci. kase biñ ko fay pour mu am ko ci làmb du yomb. si période bii. fan nga teg lool. dama ko xam xam si làmb. <laughs> waa xam nga nit ki moom man mënumaa mënumaa nettali sama gént gi nettali gént jàmbur mënul nekk. Hmm. man xam naa man sama bopp bu baax xam naa su ma jugee lu may topp. xam nga mooy li ma ko wax léegi. Mhm. su fekkee booy bëri ji di dem estat oto bi lay topp yàgg say gàllaaj kese moo la yóbbu suñ la fayee yenn kese yi da ngay dem na xaar mu dem. këllam di ko ñëwaat li nga oto bi ak gàllaaj képp ñoo ñoo koy topp. billaahi wallaahi wa taala barki alxuraanu karim kii maa ko ëpp nit. waaw baa baa samay sa xolal ma wax la benn affaire loo xamul. samay gétt lay mais est ce que tamit seen. ma benn affaire day ñëw sama gétt. di fa rootee pour dimbali ay ay supporteram baal ma daaneel xam na lu may wax xam na. mais ko mais mais mais si waxtaan bi maanaam bu amee dégloo rek day neex parce que dañoo bàyyi suñu temps ñëw fii. Mhm. comme li ma koy wax rek suñu garant la. te lenn loo xam te ji nii manque de respect la bëgguma ko suma diggante ak moom. il fa ñu dégg déglunte pour waxtaan bi gën a neex ndax ñuy seetaan bàyyi xel li ñuy wax bu baax. Mhm. naan ne suñu garant la def na lu ne si làmb. lu ne def na ko si làmb ndam lu ne indil na ko Grand Yoff mais tey lim def nii si làmb néew na mbëri ko def si làmb victoire yi mu am néew na lu ko am ci làmb. baab baab ñu da a yaa ngi dégg li ma bëgg a bu baax. dama ne man sama jëm boobu man xam naa li may jar. man promoteur ñeme wu ma woo man laa di wax ak man làmb di ma fay ay sept cent mille wala huit cent mille promoteur ñemewul loolu. ah lu tax loolu. xanaa xanaa xanaa du du jënd ak jaay rek. promoteur ñemewul loolu. promoteur ñemewu ma woo wax combat ba pare nga xam ma maa ngi naan defaat ba pare nga may fay ay sept cent mille. xalaatuñ promoteur yi ñu ngi may dégg promoteur xalaatul loolu kuy jënd ay 2 millions billets promoteur ñoom laa fay 700000 billets. waaw yow de boo yow da ngay mobiliser moom. loolu moom maa ko. dégg nga fi may waxee. mais dama moom si jëm boppam moom moom moo yor plan de carrière am moom manager bu waxee moom mu wax li mu bëgg moom lay def. làmb nañ bàyyi promoteur ak mbër yi suñu waxee nga naan non sama staff dëgg la staff si làmb la bokk mais yow yaa xool li la enragé nga def ko. Mm-hmm. parce que làmb bu ñëpp jeexee yow yaay dem ci digg géew bi. dëgg la est-ce nga man li lu ma jaral bu ma ko promoteur fayee ñi ma ànd dama leen di wax carrément dañ jël combat bi ñu dem bëre. mais yow jubóo nga ak promoteur bi. non man jubóo woo dama combat yaak diw ma leen ngeen seeti ko naan di faal mu ngi nii toog internet bi ñoo ñuy seetaan Sénégal ñoo ñuy seetaan. Mm-hmm. Fallou Ndiaye bi ma woowee di ma wax combat dama la ko demal nga wax ak naan faal su ngeen déggee bu la neexee sama xaalis nga dagg nga dooleel ko ko Assane Ndiaye mu may dégg suñu waxaalee ba déggoo ma nag moom bu ko neexee nag dagg sama xaalis lu ëpp mu jox ko naan di mu ñëw mu may ma sax ñu bëre ma daan ko ñu yoon incha allah rabbi. naan ne xanaa léegi léegi leer na. li ma wax man benn promoteur moom mi ngi wax benn man wax naa promoteur bu dox suñu combat maag moom benn yoon la ma woo mi Assane Ndiaye. ngi dégg Fallou musuma woo di ma wax foofu papa ñu ngi may wax yeneen adversaire yu dul papa. Mm-hmm. xam nga toog si ñuy naxante bu ñu naxante ñun papa champion nga def nga lu ne si làmb wante ba tey boo ko xam nga tey ku am ku am cinq cinq victoire ak ko am onze victoire mënuñoo yem bokkuñu palmarès lu mu bon bon bu ñu xoolee si man làmb man bëri na mbëri xam ne dañuy dañ may neexal pour bëreeg man. mais làmb nag du ab maas ak dabante la. waaw ab dabante man nan la ma dabee. waaw non dama laaj nan la ma dabee. coow làmb nag mën na ko wut moom pour maagum suñu diggante moom coow. waaye amul coow benn coow bu la xam ne promoteur yi topp nañu bëgg combat bi ni mu neex sama pro ma wax la benn affaire maa liis Liss Ndiago xam nga liis Ndiago avant combat bi nañ ma li Liss Ndiago dama ne ko bu ñu ma fayee ma bëreek moom. mais mais mais lan lañ ah, gis yow lan lañ gis yow ba ñuy jël booy. non waa kay période bi ñu toll. dafa am booy yu génn yu nga xam ne suñu jaaree bu ñu defee tuuti. erreur mhm. dañuy bëgg bëreeg ñoom pour. pour waaw pour lancer wu ndax ñu ñu ñu jot a dajeel quoi. Mm-hmm. xam ma ko dajeeg ay kéwal ak ñoo ñëpp daan leen dañuy bëgg jaar fa pour pour pour wu. Mm-hmm. man nag maa mayul benn xale bi lancer wu sama kaw billaahi wallaahi wa taala barke alxuraanu karim làmb daf maa jaral bu baax a baax léegi. déggoo li ma la wax. billaahi xaalis bu weex tàll laa la wax. laay def si entraînement di ko def sama bopp. guddi kon kii fi mu toll nii waxuma kii waxuma ma déggoo la. waaw non xam nga fi mu toll nii papa moo fi nekk. xam nga du ma la wax euh, Ada Fass bu fi nekkul wala Liss Ndiago bu fi nekkul. ama papa ba nga ma wooyee ne ma papa laay bëgg man ko amul problème. Mm-hmm. ndax man du ma kii benn mbër. allah mm-hmm. ma moo mel noonu. dëgg dama lay wax leen papa promoteur bu ko seet fay ma lu ma jar ful loo xam ne jaral na ma ma bëreeg ma ku woo Issa Dieng ne ko Ndandi Fall ak papa boo jinne Issa bu d'accord man d'accord naa pour bëreeg moom. mais est-ce que doo wóolu Assane Ndiaye wala Fallou Ndiaye ne leen ñu ñu ñu ñu ñu ñu dagg sa kese boo ngeen bëre. man laa man. Mm-hmm. kii toog du ma bàyyi ma fenn. dëgg la. Assane Ndiaye promoteur la. Mm-hmm. Fallou Ndiaye promoteur yi bëri na man aw ma problème mu bëri. Mm-hmm. journée yi may wax bëri na. adversaire yi ñu may wax bëri na. yaa ngi dégg fi mu waxee. yow yaakaar naa ne woo nga ma keroog di ma ay adversaire man la ñooñu bëriwuma ak ñoom hmm. parce que mbëru cent du bëri mbëru million loolu de waxoon wax naa la ko ngay dégg hmm. isa dégg ma naan suñu grand la moom si jëm boppam day bëgg a bëre mu bëre hmm. su bëggul bëre dana dem keneen ku mu bëreel man damay bëre xale ci yoon laa nekk am lu bëri lu topp suma ginnaaw gox bi may yeewoo tey ñu am lu yaakaar ci man yaa ngi dégg moom tamit même chose mais dama am na yenn cachet yoo xam ne laa la wax promoteur duñ la ko fay wala doog dañuy xool sa naataangoo yéen ñaan yi nga xam ne wala ay sëñ Modou ñaan mooy yenn cachet yi laa soo ko bëggee bëri da ngay bëri booy yi nga xam ne dañoo jógee man la suma ay millions de personnes di leen topp ñu ñëw sévère le bés bi. naan ni faal amul benn promoteur bu koy tëgg nii nii nii muy jël di ay muy jël xaalisam di jël ay deux millions bii talatul loolu sax. mu yóbbu kër ga la tal. non talatul loolu nañuy waxante dëgg rek naan di faal ay journée mi mi bëri ñu seetaan nañ ko. combat Kaolack bi passé rek. bu la neex nga woo. barki maam Seera Fall. daa sore <laughs> ay kaar laa jël yóbbu ko Kaolack bu ñu bu ñu naxante mi non man neen déggoo li may wax si biir xanaa kii déggoo li mu wax day ñëw sama gétt di fa root waaw loolu bëgg naa mu leer yow yow loolu bëgg naa mu leer nga leeral léegi moom mi ngi wax loolu waaw mu ngi ne mu ngi day ñëw day ñëw sama gétt di fa rootee xam nga wax moom da nga koy solal tubéy wala nga wodd ko. waaw léegi ma laaj leen ah xam nga Angel bu baax xam nga Angel xaritu Ndeye Gueye déglu ma wax la rek sa combat yu bëri da ngay ñëw si Angel pour mu jàppale sa combat mi ngay wax ko dama jël ay 2 millions di ko def maam Serapha ma yaakaar xaar waaw déglu la da ngay xam nga. Angel suma ma jigéen la. Ah. barki Serigne Abdul Karim Mbacke man su fekkee damay wax fen yàlla ma safara jël adiya Angel su fekkee mos na jox sama combat 100000 li sama papa jur yi yàlla naa ci gën ne yow. toog gàlle Angel. ma ne. xam nga yàlla dëgg ngir moom. man waxuma pour moom mu gëm ma. Angel lii la mu ngi may déglu dina jàll. Mm-hmm. Angel numéro li may bu fekkee du dëgg xam naa dina ma woo. Mm-hmm. dama ne Angel Fall mosul jël 100000 francs def ko sama làmb mais nit ku baax la suma xaritu jabar la. xaritu ñaaña la su ma rakk jabar nit la borom baax la yaa ngi dégg mais musul yëkkati cent mille francs ne ma am maa la ko jàppalee sa làmb. ah naa barki alxuraanul karim fekk naa waaw non xam nga xam nga dama dama lay wax lu gàtt xam nga tey nit nga nga nga xaritoog tey suma jabar muy jaay ay billets nga jënd tey benn trente mille billets wala nga jënd quarante mille billets loolu du dara si làmb. est-ce que dégg nga fi ma waxee mën nga ñëw fekk ay bii foofu mais dama ne sama jabar mu ngi dégg. soo neexee nga jë mën naa ko woo léegi-léegi si émission bi Angel Fall mosul jënd cent mille billets sama làmb barki alxuraanul karim kii toog mun na ma bàyyi mun kii du ma bàyyi sama yaay man ñi may jàppale sama làmb Angel Fall nit ku baax la moom peut-être mu ngi koy jàppale te moom xam na loolu Angel Fall ñëpp lay jàppale mais man laa Angel Fall mosul yëkkati cent mille francs def ko sama làmb mais loolu jarul ma koy fen parce que nañu waxante dëgg àdduna nit ki mënu la defal baax nga toog fii ne loolu mënu mësul nekk loolu man dara jaralu ma ko ku baax la. Ah, fekk naa fa bolok de te lu mu. bon non bañal loolu non lay wax benn non bañal loolu. bu réer lu mu bon bon ëpp na cent mille. loolu bañal loolu. fekk naa fa boloku loolu bañal loolu bàyyi fa. non bañumal dama fa ko ko fekkee. boloku bee laa fa fekk. bañal loolu. ay super champion nga waaye. non moo tax ma lay wax ni loolu pour man loolu su amee ma wax ko wàññiwuma dara. su fekkee loolu amul ma wax ko wàññiwuma dara mais nit ki da ngay wax li nga xam ne yow moom moo nekk ci yow nga wax dëgg te yàlla tax Angel Fall nit ku baax la suñ gisantee dañuy kaf dañuy ree nit ku baax la keroog rek dajante nañu ñu taxaw waxtaan. mun naa ma yaa sa jabar ngeen maa bàyyi affaire yooyu ma ko ñu bàyyi ñu bàyyi la mun nañoo toog ay ati at yoo xam ne duñ déggante ak moom. yaa ngi dégg maa ngi sant Mame Boye bu baax man kooku mooy sama DG. yaa ngi dégg fu ma waxee kooku moo tax nam ma dara si làmb dina nag di di di nuyu sama grand pape Singapour ñooñu ay millions lañuy def sama làmb. mën nga fa jaar tàggatoo waale ndax ñu ngi may signaler temps bi. barki Rasulaay. Mhm. Nandi Fall suñu grand la respecté nañ ko jox nañ ko cër làmb moo ko fi bàyyi làmb moo ñu fi bàyyi. yaa ngi dégg. Mhm. xaalis moo tax muy bëre fii képp kuy bëre xaalis moo tax ngay bëre pour dimbali sa njaboot ak say waa kër. Mhm. bu bëggee ñu bëre. bu ko promoteur cherché fay ko lu ko jaral mu jël combat bi bu bëggul promoteur yi man combat yi may li signalé wala yi ñu bëgg ma bëre suma ma arrangé dama koy jël suma ko arrangé ma bàyyi. maa ngi sant tamit Ahmed Boro mi nga ñoo ànd. maa ngi sant Ahmed Boro mi nga xam ne moom laa andal di sant suma staff. di sant ñi nga xam te jii ñoo mobilisé wu jóg jóg pour jàppale Papa booy Djiné ku si mel ne Abdou Salam ku si mel ne Aliou ku si mel ne Jules xam nga di gërëm suma booy may àndal Petit Dieye Ibou Sène Ibrahima Dunk mafia bu ndaw bi Alsane Mamour suma président fans club Zalba itali xam nga di nuyu ñu may jàppale yëpp. waaw di di sant daal na Gounass yëpp di sant ñu may jàppale bu baax a baax a baax grand Pam Ndiaye Mame Boy Diao maa leen di sant bu baax a baax a baax a baax di sant suma jabar di nuyu sumay mag Buri Aïda Fa Diop xam nga sumay jarbaat Ibou Mohamed xam nga. di nuyu suma waa koñ yëpp Koroma Gale Grand Madar maire Ndioba su ma amee combat ñooñ duñ lekk duñ naan guddeeg bëccëg suba ngoon di sant ñu may jàppale ñëpp surtout Alioune Nar nag Abdou Salam tamit même chose ak Grand di nuyu waa Medina yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di borom defal ñu jàmm di wax lépp lu ñu sumb rek suñu borom may ñu si ndam waa yëpp yëpp di ñaanal ñi nga xam ne ñoo am combat surtout Thiatou Daouda Fall ñu koy ñaanal suñu borom may ko dam di ñaanal Boy Niang Notaire yàlla may ko ndam di ñaanal mbëru géej waaye yi nga xam ne ñoom combat ma ca pere la suma doom day maa ngi koy ñaanal suñu borom may ko ndam ci combat bi ñu ngi lay ñaanal suñu borom may la ndam lu si dugg si barke Seydina Mohamed di leen sant yéen ñi nga xam waaw maa ngi santaat bu baax Grand Yoff xam ne fa laa jóge zone 7B di sant bu baax baax di sant Pamba Diop maire Grand Yoff maa ngi koy sant bu baax a baax di sant Mara di sant Angel Fall bu baax a baax sama yaay jooju di sant Diop social Abdoulaye Diop Badara Kebe suñu président président écrit grand mboolo di sant Père Soudou Issa Dieng ñoom ñëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax. di kuy doomu Grand maa ngi leen di bëggee bu baax a baax di sant sama waa dëkk waa Waalo waa ñëpp maa bu baax a baax. wax Papa Sambiwa maa ngi koy sant bu baax xam na émission moo ñu booleel bu dee nag wax nañ loo xam na lii dépassé ñu ngi jégalu gaa yëpp. xam nga benn instant yi ay mbër lañ dañu war a wax wax nañ benn instant di sant képp promoteur na bépp bu bëgg suñu combat maag moom su jaaree fu mu war a jaaree bu dee. nga wàññi dama ne yow <laughs> promoteur yi man benn promoteur moo dox suñu combat maag moom te wo waxaale wuñ prix daf ma woo wax ma maag papa ma ne ko instant yi dama nekk séerase après bu ñu paree ñu déggante déggaatuma ko muy Assane Ndiaye. lu weesuloo lu amul benn promoteur bu ko dox am na yeneen nag du papa rek yeneen combat ku bëgg sama combat soo ma woowee man pare naa pour bëri na bëri moo ñu fi bàyyi tamit quoi. waaw di félicité tamit suñu grand Alioune Seye 2 ah ci ndam li mu am ñu ngi koy ñaanal suñu borom may ko ay ndam yu gën a kawe si mu jugee ci barki Seydina Mohamed. waaw jaajëf. grand mbooloo tamit maa ngi félicité mbër yi fa am ndam yëpp wax dëgg neex yàlla. saa yi nekkoon na si jafe-jafe temps yéen wala yàlla ibbi na bunt yi presque am nañu quatre combats quatre victoires incha allah yal na yàlla jëm kanam quoi yal na jëm kanam bu baax a baax. ñun tamit am nañu ay combat yàlla nañu yàlla may ndam ndax Adama daan na Baye Jili daan na <laughs> ak Fatima gis ngeen ni lay demee ci jàmmaaloo di leen jox dig daje waaye nag maa ngi ñaanal ñi nga xamante ni mooy président la Diop kook sama président la di ko ñaanal ah, li muy yootu muy mairie Golf Sud Golf Nord boog yàlla yàlla def mu jot ci ak jàmm ak ki nga xamante ni mooy Pape Gueye boobu jàmm gën si Kambaaw maa ngi koy béggee bu baax a baax di ko wax ne moom tamit na ko gars yi jàppale ndax moo ngi def dawe bi jàmm gën si Kaap Mbaaw di leen jaajëfal bu baax a baax ji leen jox dig daje kontaan naa ci yéen ci beneen jàmmaarloo ak yeneen ba jaa ngeen jëf